Mathia aw aw dafa tàng. ah Mathia ñax nga. dafa tàng rek. mais tey ngeen def lu rafet ci Gunaas sarga Alioune Seye far ci club Niang bu Ndaw. waaw loolu lu ñu war la quoi. waaw Alioune Seye dafa nekk koo xamante ne tey xeebalul kenn bisam. nekk suñu mag boo ko ñun écurie fàtte boppam bu ñu ànd ak moom ñoo koy gën a nekk star tey bu ñu ànd ak wàccee boppam ci lépp kon tey bu ñu amee bis bi mel nii tey grand combat di deuxième grand combat booy bi kon tey ñu sargalee ko ko kon loolu ndam la ndam la si ñaamu ndaw ndam la si écrit waalo ndam la si doomu gunaas ndam la ci géejawaay ndam la si fépp koo xamante ne ngay bëgg Alioune Seye 2 nga nekk waaw moo tax tey waaw gis nga nu mu demee ñu sax wax si lu bari si kii bi mel na sumb cosaan la waaw sumb cosaan la te fii sumb sumb bi am nii sumb dafay cosaan. jëlal ma lii jëlal ma ko lay daanu Amar la. lii yaay. délégation bi am na solo. waa Abu maa lay ziar di leen bëgg ah di leen jox seen wàccuwaay dem contentement ak mbégte bu baax a baax a baax waaw. tey sa rakk bu ndaw jël li nga xamante ne mooy sumb yi ñuy def sargal Alioune Seye. tey doomu géejewaay mbër yëpp say xarit ñëpp topp sa ginnaaw. loolu lan la sa diggante Guédiawaye waaw daa delloo mbatt ca ndaal rek ñaa sama doom la sama xarit la sama lonko la mu dëgg yàlla bu defee bis bu toll nii tuddee ma ko jekk na jaadu na loolu moom kenn du lax kenn du laaj lu tax ñaa def loolu waaw daxaa ñëw sotti ñeneen ak ñeneen ñëw sotti ma ànd ak waa équipe waala gi yëpp ànd ak waa sey de famille bi yëpp xam ñi ñëw ñi ñëwul yëpp seen xol ñëw na loolu daal waaw borom bis bi noonu la toll ki ko tuddee noonu la toll. waaw lan ngay yëg. waaw sant rek contentement ak mbégte rek wax dëgg yàlla. contentement daal bu am commencement bu amul yëmi waay. waaw ànd ak sama doom yi waa Igri Waalo yëpp ñam combat sax ñu ngi ci biir géew gi. fàkk bi ma la joxoon tey suba. waaw moom laay dóor. ndax <laughs> moom ngay bàq. waaw bàq boobu bi contre temps kese la. abu abu yow da nga am fit nag <laughs> waaw. waaw. Thank you.